mu dugal client bi li client bi ko xaral mu ne ma sonk la mais defal melal ni ku ko xamul man tamit ma dugg jox sonko salbe bi gisuma ko ba léegi de ak dem indi huile bi sonko ñëw toog mu koy maase dañuy maase sonko ba mu def ko ko maase parce que day métti bu baax ak ñu yaar ñu ma génnoon ci laa génn bi ma génnee dañ toog ci biti taal sama téléphone déconnecté wu mu maase Sonko ba mu pare mu génn si bi mu génn see ma ne ko yow am nga lay manigancé ngay rappi rappi nii rek man sax pour man leneen lay def mais xamu ne woon lii la ci jublu fi ma ñaawee njot mooy fu ma ko déggee muy wax téléphone parce que téléphone am bi dafa am problème écoute il faut mu def ko may livre mën a wax bi mu ko defee may livre wàññi ko mais maa ngi dégg parce que sorewuñu mu ne ko waa mu ne ko ñu ngi lay jël si léegi après ci la dem ubbi Sonko Sonko dem ñibbi mu tëjaat bunt bi ñëw versi suñu patron moom jëkkëram moo fi nekkoon moom leen ci cinquante mille yëkkati dix mille francs moom ma ko mën ko nag effectivement Sonko moom ko mën ko mën ko mais mu nekk ci kër gi yëpp moo ngi rafet rafet xam nga ni boo defee loo xam ne wóoru doo ñu rafet rafet ko yow amul loo mën a glancé de mu ne pat mu yëg ci kaw mu fekk ko ci kaw mu ne ko lan la mu ne ma sama yaay mu ne ma naa ñëw léegi léegi léegi parce que suba daa am fu mooy yoon fekk na dëkk laabeel nañu ne dafa ëmb FM Dakar ba indi fi texte de am mais indiwul li wone ni lii texte la lépp texte bi ko ci kaw taabu bi fi saralati mu ne ko ay aji couvre-feu bi fooy dem mu ne Jakarta moo may yóbbu mu ne ko Jakarta mu ne mu ne ko Jakarta nan la la mën a yóbbu mu ne ma Jakarta ci koñi lay du ko dog yem mu ne ko waa baax na ci laa wàcc dem ni ko te aji moo ngi nekk si kër gi bëgg ma la tonton Ibrahima ñu dugg rek wala ñu def dara ba mu ubbi bunt bi dem tonton Ibrahima nag bàyyi si xel parce que woo na jéem a ji ba expliqué ko mu bàyyi si xel dañu jékki-jékki di dem rek ñu ma jóg man ubbil ko buntu bi gis groupe xale yu góor xam mooy xale yu ndaw yi daw couvre-feu pour man sax ay agresseur lañ maa ngi ko yuux naa ko aji waññeeku si mu bi ci oto bi mu yéeg dem sa lendemain mu ñëw ay quinze heures seize heures mu ñëw bi mu ñëwee ñu ne ko aji sa añ baa ngi nii mu ne déedéet police laa àndal mu ne ko police mu ne waa jël leen sama yére yi loolu leen soxla rek jël leen jël quelque yéreem lemu ko sax yu tilimee bi set yëpp mu ñuux ko ma ne ko comme police nga ak kaay mu la muy dem ngay jooy jànk bi du parce que dama ko yërëm ndax nee na papaam ko génne ñu dem añu ñu dem ba ci oto bi li nit ñi di wax di weddi àdduna nit ku nekk da war a wax rek te yàlla rek tax ndax man lii may wax dama ci am lu leer nañ te suñ ma woowee ma jaaraat ñu dem ba si oto bi tap-tap bu ñuul boo xam ne dañ ko vitrine ba doo gis aji xale bu góor bi toog aji bi muy ñëw xale bu góor bi wàcc aji dugg dend ak benn xale bu jigéen ak xale bu góor bi kon xam naa si ginnaaw ñi tàng sax ak kenn kiir góor ki nekk ci kanam di dawal ak keneen ku góor ki nekk si kanam kon xanaa du cinq personnes ci oto bi aji dem même pas trente minutes patron bi agsi ak police dañuy enquête wax ji nii la demee dégguma yuuxu dégguma dara loo xam ne Sonko def na ko ci biir lii bi wala moom te moom mu ñëw versé ba yëkkati xaalis bi jox ma ko. noonu la dimbali. waaw ko yow boobu nga gëj a gis aji ba léegi nii wala. aji depuis mu def loolu ba pare. ba gis ay bagages am boobu lañ ko mujjee teg bët. ba jour bi mu dugal bi histoire bi amee am ba am ay trois jours. mu dugal statut du jooy. ma envoyé ko ay vocal. kon ko yaa ñu ko yow yaa def lii yëngal réew mi ba mu yëngu nga naan da ngay def ay yoon mu lii message bi bloqué ma boobu laa ko mujjee dégg te boobu laa ko mujjee gis te boobu sax tontuwul ma. yéen ñaar xanaa ay mbokk ngeen. maag aji. Hmm. maag aji duñu ay mbokk de. waaw doo leen ay mbokk. déedéet mais moom mayu la woon xaalis yëkkatiwul woon xaalis may la wala. aji yëkkatiwul na dix mille francs. Hmm. sonk Sonko génnee may ma ko. mën na ko lii nag mën na ma Sonko moom ko may. en plus biy nekk ci bureau bi. Hmm. naa ko aji. yow lan moo tax ngay def li lu la jaral mu ne ma loolu moo ma bëgg la jox cent mille franc mm-hmm. nga dem mm-hmm. man nag ma bañ mu làkk la ko si